alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala subdatil akwaan wa kaabatil arwaaxi wal abdaan sayidina muhammadin majmaci shuun wa xaqiqati kunhi sirrihi lmasuun wa ala alihi wa saxaabatihi tayibiin attahirin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 rawat na ñu nekk ci palaasu gardenias yi nekk ay gardenier yal na yàlla xettali leen ak ñu nekk ci caawo geek ñu nekk ci tool yeeg ñu nekk ci bureau yeeg ñu nekk ci oto yi yal na yàlla sàmm leen ñoom ñëpp jox leen ay oto te musal leen ci ayu oto yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yal na ko yàlla def dëxaloon naa la ne danaa la sof ak yow li ma sosoon ak yow lii màbbu jëf bokk na ci adamu rida bil qadri wa suxti inda nusulil masaibi bil abdi maanaam ñàkk gërëm dogalab yàlla bi yàlla dogal nga ñàkk ko gërëm dafay màbbu sa jëf yàlla gërëm yàlla dogal na neex na gërëmal nga sant yàlla dogal na naqari na muñal te nga gërëm waaye nag bu yàlla dogalee mu neex nga bew bu yàlla dogalee mu naqari nga saalik loola lépp baaxut nañu jël dogale yàlla yi di ko askanee yàlla te lu yàlla def rek nañu neex bu ñu yàlla defee nañu neex bu ñu yàlla defalee tamit nañu neex waaye bu la yàlla defalee mu neex la bu la yàlla defee mu naqari la demal nga vérifier gi sa gëm yàlla gi loolu dafay màbbu sa jëf ju baax ji bu la yàlla rayalee nga commencé ñaxtu lu ne nga wax bu la yàlla ñàkkalelee nga jël ko di ko askane ñeneen naka ñaxtu bu la yàlla feebarale nga jël feebar ba fu ne wéeral ko ku ne moo tax ji jamono dëkk yu bari ñu may déglu ku fa dee yàlla la rey waaye xam na ci dëkk yoo xam ne fa yàlla gëjee rey nit kenn xamul kañ la ku dee rek am na kuñ ko askanee dëkk yu bari ku fa ñàkk yàlla la ñàkkal waaye am na dëkk yu bari yoo xam ne ba fa yàlla gëjee ñàkkal nit kenn xamul kañ la dama ne dëkk yëpp ku fa feebar yàlla la feebarloo waaye nag bari na dëkk yoo xam ne ba fa yàlla gëjee feebarloo nit kenn xamul kañ la lool lépp ñàkk gërëm dogalab yàlla la waaye boo gërëmee dogalam da ngay wax ne qul lan yusibanaa illa ma katabalaahu lana huwa mawlana wa ala llaahi fali tawakkalil muminuun te loolu lu am solo la xeetu mutawakkiluun yëpp nga def ko tamit dogalal da yàlla bi bañ a ngàññi ngay ñaxtu ci wàcc ak musiba ci jaam yi loola daganut naan lu tax yàlla def lii lii nu ko yàlla manee waaye waay lii nu ma mën a dale man li ma def ci àdduna ci lu baax li ma wax ci àdduna ci lu baax diw ni ma taqoog moom ak ni mu baaxee diw li may ñaanal ak nangam lu ma nii mën a dale yooyu yëpp ñàkk gëm yàlla la ñàkk gërëm dogalab yàlla la ndax yàlla lum la defal xamoo lu tax mu def ko su boobaa nag muñal te xam ne fii lu la fi mën a dal lu metti métti lu ko gën a metti dal na nit kooka muñ ko waxuñ nag ne nga deelee doo ñàkk am ak naqar ki sa xol waxuñ doo jooy jooy mënta ñàkk yërmandi rek la yonentu bi keroog ba doomam ja sayyiduna ibrahima génne àdduna jooy na sahaaba yi ne ko yow miñ war a roy boo jooyee nuñ nu ñuy def yonentu bi ne yàlla def ci xol bi yërmandi rek moo tax may jooy waaye sama làmmiñ wi du wax mukk lu ko yàlla di jéppee moo tax kon ngay jëf-jëf ju la yàllay jéppee wala ngay wax wax ju la yàllay jéppee ngir dogal bu wàcc ci sa kaw mbaa mu wàcc ci sa mbokk wala mu wàcc ci sa askan loola la yàlla bañ waaye jooy ca dara nekku ca ndax loola yërmande rekk la te man laa xam laa xam ku dul yërëm kenn du la yërëm naka noonu tamit jéggi dayoo xaabaabal rëy làmmeñ rek ak dangaam ci wax loo xamee ne nii dafa dal ci sa kaw ngir mer nga taxaw naan naam nangam ak nangam mer ba tax nga ne man de lii dootuma ko defati dara dal na la rek nga mer ñu ne nangam nga ne man lii dootuma ko defati donte yàllaa ko digle duma ko def même bu ko yonantu bi diglee duma ko def loola nga wax xeet la ci murtat dafay màbb sa jëf yu baax yi te léeg-léeg ni def nit wax ko man sama yoon nekku bi dootuma ko defati donte yàllaa ko dili sama yoon newu ci donte yonent bee ko wax sama yoon newu ci loola duut lu simple de soo ko waxee nga yëg nga ñàkk yëg li nga njëkkoon a am ci lu baax lépp màbbu na yaa ngi commencé waat à zéro fukkeel baa ñaar nag mooy daawal wilayati bil kadhibi aw iddia il mashiqati wa huwa tasadduru li i'taai il wirdi min gayri idnin min arbaabihi di hoote ak wilaya foog ne ak wilaya daal mooy xeddartiku rek foog ne ak wilaaya rek mooy colaay gu rëy foog ne wilaaya mooy wax nànk foog ne wilaaya ak pexe la su ko defee tamit foog ne tamit wilaaya ak téxit la nga di ko xootee di ca trompé ñu bari mboolem porluwaay yi bi ci gën a bon mooy porluwaayu wooteeg wilaaya ndax yàlla xam na fu la day ni makaama boo wootee te yeggoo ca dafa lay nattu nattoob makaama ba doo ko xàttan nga mujj xal dee bëri na fan yu gàtt yu bëri dara yóbboowut ko nit ki wala dara yóbbuwut ko lu xoote maqaama boo xéegul rekk nattu la nattoob maqaama ba nga xal ko bëri na dee yu ñaaw yu bari dara yóbboowut ko nit ñu bari lu dul xoote loo xeggut ñu nattoo la ku ca xegg xàttanuloo ko dootoo far xeggati ba ba ngay dee moo tax mu tasawifuuna yi dañuy wax ne saa yoo xootee maqaama boo heggut ñaara lay xaar ci nattu mooy ba ba ngay dee dootoo ca heggati ñaareel ba tamit dañ la xen nattoob maqaama ba su ko defee doo ko xattan nga dee mi ngi mel ni xaleel bu ndaw attanut sax 5 kilos ceeb rëy nga am ne yen leen ma cinquante bi attan naa ko soo ko ko yenee doq gu damu attan na ca loos wu damu mën na ko caa fekk tànk yu paralysé mën na ko caa fekk kon maqaama bu ne lam am ci suukar lu toll noona mbaa lu ko ëpp la am ci kaani loo ca am ci bànneex rek lu ko gën a réy nga ca nattoom ga yow nag boo ko xootee xeggoo ca ñi xen la nattu ga nga mujj xal ku dee sa fan gàtt nga dee deegu ñaaw dem safara kon loola jar naa daw daawal wilaaye nag dafa bari ci suñ jamono ji jamono ji moom dafa mel ni tawab xoote moo taw ci suñ réew yi ba tax na dem na ba ñett xëpp nañ ñett jamono ji ñiy xooteeg sëriñ dem nañu ba xëpp nombre taalibe yi ñi fii sëriñ tey di ko xoote kenn ku ne di korkoral boo leen génnee woon nga génnee nombre taalibe yi taalibe yi jeex ñoo leen xëpp waaw ñay xoote buñ xëppee ñu yuxuyu ji ku yuxuyu ñaareel bi tamit euh, bi làmbu yàqoo gut dégg naa sax yàqu na ma ne ndokk ba mu yàqoo nag ba mu yàqoogut dem na ba nga xam ne tey euh, ñay yëngatu ci wàllu bëri ñu ne am nañ licence ak ñay wut licence yaag di ca sonnoog wàllu woowa tey dem nañ ba xëpp supporteurs yi amateurs yi làmb yi dem nañ ba mbëri làmbu yi xëpp leen kon kuy seetaanati kuy dagg bi loolu nag ëpp gee tax sax dem ba loola benn la ci yàq làmbu waaye dem na tamit ba politiciens yi nga xam ne lu yàqu ci réew mi boo toppee seen tànk ba fekk ko ci dem nañ ba tey politiciens yi ëpp nañu électeurs yi kon su boobaa kuy sànneeti karta ñett yi kon buñ demee ba ëpp ñetti yi fuñ jëm kat yi ëpp nañ xuy ji kat yi amateurs yi maanaam làmbook ña cay laggak ña ngay tuus dem nañ ba ëpp amateurs yi làmb ya fuñ jëm foog làmb yàqu mënoo ci dara politiciens yi tamit kenn ku ci nekk bu ànd ak nit muy neex ma ngi koy tagg di wax luy dëgëral mbiram rek buñ ko follee rek mu sal mu mu mu xaaj parte boppam koo folli mu wut parte parte boppam ba léegi parti yi kenn xamuñ nuñ toll koo dugalaat mu ne mekk du wax dara koo ànd ak lu yàq nga bëri bëri mu téye làmmeñam su demee ba génn doola di la xas waaw yow ba nga ca nekkee xam ne ma nga yàq lu tax woo koon ana dëggu ana ragal yàlla ana maandu ana yaakaar yàlla yooyu yëpp dafa mel ni lu jeex moo tax di gi nekk ci jamono jii rawatina ci wàllu politique bi kenn mënu la koo wax ànd ak nit muy tedd ngay tedd ca teddam nga dema dem ba mu daanu nga wan ko gannaaw di ko xas wan ko gannaaw di ko yàq wan ko gannaaw di utaat keneen keneen keneen ak ñeneen ñooy ànd ak kooka bu amee xel tamit na yëg ne loola mu am bu ko ñàkkee tamit moom mooma dañ koy mujj di ko xas nañuy xasee ku njëkk ka rek kon jamono ji lu rek moo fi nekk nit dafa war a gore soo àndeek nit ba mu daanu da ngay wax ne du ma xem ci daanu damay xalangu loola mooy ngor loola mooy ragal yàlla loola mooy jom te gis nga ngor même dafa nekkoon ci sax jamonoy ceddo ba fi lislaam nekkagul sax ngor dafay nekkoon moo tax euh, euh, lislaam bi ba muy ñëw ngoree ko dalal ngore moo fi jiitu lislaam am jom ne lii jomb naa ko ñu ma cay dégg waaye nekk ak kilifa yore njaboot am ñu lay déglu sa waxi tay ak sa waxi démb boo leen comparer ñu wuutee nga taxaw ci tele bu nekk ngay yi di wax xam nga ne loola musiba la te bëri na lool ci politiciens yi boo leen seetee lu bëri lu yàq ci réew mi ci jikko yi yàq lu bëri ci réew mi ci koom-koom yi yàqu lu bëri tey ci loo xam ne mënuma koo wax soo toppee tànk politiciens yi am nañ ci par maanaam repa maanaam par responsabilité bu mag a mag mag a kon nit day gore nit day ragal yàlla nit dafay wóolu yàlla loola lu jara jara bàyyi xel la kon dafay yàq kon maa ngi bëgg a wane rek ne xoote maqaama te yi jamono ku gént sax commencé xoote maqaama boo fi te doon gént sax commencé sa bàyyi borom cër la woon nga gént gis ko géntaat gis ko commencé woote maqaama ne ay man kay fan yii yëpp maag sama papa fanaan te xamoo loolu li muy tekki ña xam gént ñu ne saa yoo géntee sa waajur génn na àdduna xamal ne bàyyi na fi lu mu bëggoon ngeen def ko ngeen négliger ko mu lay feeñu bëgg ngeen taxaw ca loola yow na nga jàpp ne sa bàyyi mi la feeñoon ki nelaw héeg maqaama la ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen fu muy ni ku gént rek boo xëyee créer sa wilaayaak bopp moo tax tey sëriñ yi bari nañ sëriñ sëriñ lu gi bari nañ tabaarakallaahu xootekat yi bëri nañ la cay yàqook la cay jurak kenn xamut ni mu toll waaye ña ca ñàkk gën a ñàkk sens rek mooy ñu xamut ña ñooñu tamit ñoom ku jug rek tudd lislaam rek ñu ànd ci ak yow foog ne lu waaye askanee lislaam rek loola wér na fekk na la ca xëpp defaroon nit ñi waaye defar nit ñi taxul leen a jug ndax kooka sax moom ci boppam defaruwut bay mën a defaree Cheikh Omarul Fuuti waxoon na ko kuy xóoteeg sëriñ te yow sa banab taaliba ba fendee gut ku la jox boppam nga toroxal ko ndax yow torox nga ba pare kon loolu jar jar naa daw bu baax a baax a baax daawal wilaayati bil kësi bi kooka dafay màbbu jëf la nga njëkkoon a am ci lu baax lépp tabaarakallaahu dafay yàq te loolu jar naa daw euh, sëriñ bu ragal yàlla maandu jub yàlla may ko cër ànd moom sharia bañut ko waaye nag ànd koo xamee ne nii dafay yàq sa diine yàq sa pas-pas ci boppam dong la la jëmale su boobaa loola sharia bëggut ko te loola bari na lool ci suñ jamono ji ndax baatab sëriñ sax boo ko xal boo mu jox la këriñ këriñ nag baaxut mooy loo xam ne boo ko laalee ñuul bu la laalee nga ñuul bu ngeen laalentee ñuul te këriñ moom baaxut li tax ànd ak këriñ baaxut xutab sëriñ baax na waaye ànd ak sëriñ bu yore ji koy këriñ baaxut ndax këriñ mooy ki lakk ba pare problème am koy ka muy xuti mooy kum lakkaale te nag ànd ak koo xam ne pare na lakk ba pare boo ànd ak mën na laa lakk jar naa daw loola tamit jar naa moytu te bëri na ci suñ jamono ji lool moo tax jamono ji daal koo bëgg a woo sax booy ba ne ko sëriñ bi rek wala nga ne ko sang bi ndax koo ci jaaree ci turam moom jàpp na ne danga koo xeet ne ko sang bi rek sang bi na ngeen def sëriñ bi nangam ak nangam rek boo xee boo xooxee ñëpp sëriñ rek ndax ñëpp moom lañ bëgg a doon mu jeex ah, bi ci tegu tamit saaga waliyu yàlla yi nitu yàlla yu baax yi yàlla may la texeexat yi ba nga saaga soo xeeboo dem jëndi sa mbàjjeem safarama ndax yonantu nee na yàlla wax na ci xadisul qudsiw ne man aada lii waliyan faqad azantuhu bil xarb ba ne man aada lii waliyan faqad baarastuhu bil xarb loolu moo nekk ca sunanu tirmisi mu ne képp sama waliyu yàlla yi ku ma ci noonal kenn pareel danaa xareeg yow beneen riwaaya ba ne sama waliyu yàlla yi ku ma ci loral kenn man yàlla danaa léewoog yow yàlla nag caaxaan taxu koo xare de alquran li muy bëri bëri benn yoon la ci yàlla takk xare muy ñuy lekk riba ne fa bi xar bi minallaahi wa rasuli bu ñu ko mënta ba hadisul qudsi yu téeméer ak lu teg li muy bëri bëri benn yoon la ci yàlla takk xare mooy waliyoom yi ku ca bañ benn te léegi ñi bañ waliyu yàlla yi bari nañ toog rek defi discours defi say xutba profito ca tas mag ñi wax leen wax ju bon wala sax yow yaa ne maa ngi ci mag ñi waaye diw du sama sëriñ ànduma ak moom nga jël ko xas ko wax ci moom wax ju bon ñaaw làmmeñ lu mu lay yóbboo gàtt fan deegu ñaaw dee dem safara rek kenn mënu ci dara nitu yàlla ku ko bañ torox kenn mënu ci dara jullee xoor ak dara mënu ci dara te nag dafa am ci foo dem rek ci ñiy xootee dana xam ñoo xam ne dañ ñuy jéem a bokk bokkuñu boo ceetee ña sa gën a ñaaw làmmeñ boo to boo boo seetee nga topp seen tànk yi ne waaw ñoom seen waajur ñan lañ kenn xamul leen waaw seen waajur ndax def nañ fi dara doo fekk benn xasida buñ bind doo ko gis ña bokk ca mbir ma piir doo dégg mukk wax ju ñaaw juy bàyyeekoo ca ñoom waaye wax ju ñaaw ja ka nga cay jéem a bokk bokkul rek ñoo xam ne boo seenoon seen bàyyee tous la defuñ ko fa xamuñu woon xam-xam jànguñu woon xamuñu woon benn cër doom nag ñëw bëgg a bokk ne maa ngi bëgg a bokkee sama làmmiñ wu ñaaw yi lii ma bokk ak mbir yi la ñëmu ta wax maa koy wax fekk loola nag seen safara rek la leen di jural foo ca dem ñu baree bëri am na fa moo tax boroom kër goo dem ñaareel ngay seen ña fa gën a ñaaw làmmeñ rek mooy ña fa seen waajuree gënoon a ñàkk cër amuñu woon benn cër ñoom nag ñi foo ne tax a bokk comme seen waajur ya bokkuñu woon mooy ñaaw làmmeñ waaye ña bokku ca kër ga bokku ca fondation wu kër ga bokku ca keno kër ga xam ne lu jug ca kër ga xel daj leen ci mbaax ci ragal yàlla ci yiw ci roy ci ñaanlu kàddu gu ñaaw du bàyyi ko ci ñoom koo ca dëgg kàddu gu ñaaw bàyyi ko rek bokkul ca fay bëgg a bokkal bokkulu foog na ne nag moom wax ju ñaaw koy tax a bokk kon loola lépp lu jar a bàyyi xel la gaa yi yàlla yàlla tooke seen jëmm yi ku leen laal xal ko Cheikh na Tijaani li maqaamaam bay rëy rëy rëy nee na bokk na ci sartaay wiru doom wi bul bañ benn waliyu mooy fukkeelu sarta ba ci tariqa bi mu ne wëllu yàlla yi koo ca bañ daggal sa kurus man cheikh mënulu ma la dara ndax ku xas bañ wëllu yàlla wëllu yàlla yépp lay bañ bu la ñëpp bañee doo torox kon nag boo cee àndeek naan ànd naag wëllu yàlla ba tax ngay loo ne dama cay jaaree bañ diw diw dégg naa moo waxoon nii moo defoon nii kàddu gu ñaaw gu ne nga yëkkati di sos di kàcci foo ne dana la jariñ sa bopp ngay xàllal safara yonentoo ko wax hadisul qudsi bi mu nettali ko di wax yàlla ndax bu ñu ne hadisul qudsi yi mooy loo xam ne yàlla wax maanaama rek lañ jox yonantu bi waaye baat ya yonantu bee ko tëgg bu ñu ne hadisul qudsi yu yàlla direct mais jibril amul fa place bu ñu ne hadisul qudsi yu bokkut ak alquran ndax alquran mën nañ koo jaamoo yàlla ci jàng ci julli hadisul qudsi yi buy waxee yàlla tamit kenn du ko jaamoo yàlla ci julli su ko defee kon nag moo tax benn lañ waaye duñ benn benn lañ ñoo bokk ci kuñ bàyyeekoo muy yàlla duñ benn ndax bokkuñ nu ñu fa bàyyee koo xee duñ benn ndax bokkuñ nu ñu ñëwee kon loolu mooy seen différence boo demee ci mustalahul hadis dana la ko gërëñ fañ fànceel moo tax kon cheikh nee na ku bañ benn waliyu ci waliyóom yi waliyu yàlla yi moo xam nga ci biir tariqa bi moo xam nga ca biti daggal sa kurus kenn ku la mën a ti nekkul ci kaw suuf torox rek nit nag dana yàqu fekk ma nga ak nit dana yàqu terewul ma nga nit dana yàqu fekk ma ngay sol yére ya gën a ya gën a seer waaye yàqoog nit mooy dem ba booy jaamu yàlla amatuloo caf nga booy jaamu yàlla amatuloo yëg-yëg boo kuñ tudd ku baax koo àndut ak rek nga xas ko wax ci moom lu bon kooka dugg nga ci man aada li waliyan faqad baarastuhu bil xarbu dugg nga ci man aada lii waliyan faqad aazantuhu bil xarbu dugg nga ci wala tëji binti qaadin kaana ashiraha id munkirul awliya qad xaasa xusraana wa tarkuhu sabba wal buxda wa naxuhuma bi jaanibi cheyqi ja jaa saabian baana loolu la maam Khalifa Niass waxoon ca kibritul ahmar di wane ne nañ sopp waliyu yàlla yëpp ñi ci tariqa bi ngi ci biti tariqa bi bëgg leen xormaal leen fonk leen yëkkati leen yëkkati ku yàlla yëkkati yëkkati ku rek la lay jural màggal ku yàlla màggal màgga rek la lay jural waaye ku yàlla màggal mu nekk wëli yóob yàlla bind ay téere ami doom yu baax jëf-jëf ju rafet ju kenn mënta weddi ñu xam cër ñépp ci yàlla nangul ko texe di jàpp la ngay wax ca moom lu bon di créer say duut jublu ci pour bëgg a dund ci àdduna toroxtaane dong la lay jural ah, bi ci tegu tamit fukkeel ba ak ñeent mooy bëri looy lor mi ndee fi yàlla yi rek même mbindeefu yàlla bu mu doon foo toll yaa ngi lore te dafa am ci nit ñoo xam ne yàlla leen bind spécial ngi lor nit ñi lor nit rek final nit rek lañ man duñ fekk fu jàmm amee fu nit ñi amee seen jàmmuñu ñu créé fitna créé am mbambu nit ñi nekk ci fitnaa ka yëkkatee ka tërala jàppale ka ku mel nii Cheikh nee na dafay màbbu jëfam lam amoon ci lu baax lépp màbbu na kenn ku ne ni nga mel xam nga ko am na koo xam ne ku la gis noppi ndax lu mu dégg siiwal ko am na koo xam ne tamit ku ku la ku toog bu séenee sa toogaay ngay ñëw mu defaraat jotaayam ba am na koo xam ne tamit jotaay boo am boo ko sa gisee sa fit wa dagg sa fit wa du fa nekk ndax xam ne yàq rek la man am na ñoo xam ne yàq rek jotaay buñ dem buñ àddoo kàddu rek feeg noppee guñ xel yëpp ña ngay yëngatu kenn antutam sa sago ñu mel noonu nga xam ne dañuy lor fi yàlla yi ci seen làmmeñ di leen lor seen doole di leen lor seen sañ-sañ loola day màbb sa jëf ndax yonent bi moo ne woon sallallahu alayhi wa sallam al muslimu man salima al muslimun min lisaanihi wa yadihi beneen bi mooy bari njaalo koo xam ne foo toll yaa ngi njaalo kasratu zina te dëgg jabari jàmbur yi rek mooy sa jikko te dëgg doomi jàmbur yi rek mooy sa jikko nga yëg nga ñàkk a yëg sa jëf ji màbb na ndax njaalo dana la jural fan wu gàtt dana la jural wërsëg wu xat dana la jural deegu ñaaw dana la jural dem safara dana la jural yàlla jéppile ku la tudd mu ne koo kooka génn naa ci moom dana la jural béel safara dootoo fa génn ti ba safara dana dem benn moment boo xam ne day ubale boobaa safara naan safara tey xasaw na di ñu ne awraay njaalookat yu góor ak yu jigéen ñi ñoom la ñuy lakk ba tax tey mu xasawee nii jamono ji nag li xëpp ki ji jamono ku la xëpp daraja moo la dàqa mooy njaaloo rek ci jamono ñii ba ñuy am fukkiyaat at commencé nañ ñii fukkiyaat ak juróom ñii dem ba xami jabar du leen teree ña ngay mooy di njaaloo ñii nekk ay kilifa yu mag yoo xam ne fu ñu tudd seen tur nga yéemu ci yàlla tabaarakallaahu terewul yàlla lay nattoo jikko ju bon ji di zina naka noonu nekk koo xam ne da ngay rambaaje nit ñi diggante bu baax bu ne nga doxee fa yàq nekk nammaam safara nga jëm yonentu bee ko wax laa yadxulul jannata nammaamun Euh, kon loola jar na bàyyi xel Walid ibnu nu mu bon mi ba mu xasee yonantu bi sax maanaam jikko yi ko yàlla xasee muy fukki jikko ya rambaajkat ca la bokk moo tax moom bi mu xasee yonantu bi kenn du yàlla xas mag wóorut saa yoo xasee mag mi mag mi wax la la fi sa waajur yi nekkee woon te su boobaa boo moytuwut da nga def la waaja defoon da nga mujj euh, nekk golo gu ger gu gedd gerte golo nag yaakaar naa bu xasee gedd gerte pexe amatu fa su boobaa nag kon xas mag xóorut mooy ki fekkee démb bu fekkee sa tey moo tax ba mu xasee yonantu bi yàlla di magam magam lëndëm mu ne ko maa fekkee démb bu fekk tay bàyyil ma tontu la xas wala tuti kulla xallaafin mahinin hammaasin mashaa'in bi namim gis nga kon mashaa'in bi namim mooy day doxaa kon la di rambaaj rek kon rambaaj jikko yi xéeféer la ku ko yore di yàq diggante ñaari waajur yi diggante doom ak waajuram ya diggante nit ak soxnaam diggante nit ak dëkkandooram diggante nit ak xaritam foo wax yaa ngi wax luy gën a yàq su boobaa yaa ngi bokk ca macha in bi na miim te loola tamit moom la yàlla xasee woon Walid ibn Mughira bi ko yàlla xasee fukki jikko nag mu bokki jaasi ja ñëw fekk yaayam toog mu ne ko yàlla de di yàlla yonantu bi xasee na ma fukki jikko juróom-ñeent yëpp d'accord naa ko dëgg la man nangul naa ko sama bopp waaye fukkeel ba laa xamul sama bopp yaa ma ci mën a leeral mbaa ma ray la mu ne man doomi njaaru laa baada dalika zanim mu ne ko waaw wax na dëgg sa papa niin la woon tuuña la muy mu xiiratu te ku bëri woon xalal la man ta sëy ma yëg ne sama ànd ak moom bu ca doom sosuwul rek su ma su dee rek alal ja toxalu jëm ca rakkam yaag magam yaag mbokk ya ci laa jàppandee sama bopp ci benn sàmm ci nga juddoo ñu lay askanee sa baay mais sa baay jurut la loola bu xaste wutoon du ko dégg moo tax saa yoo xastee da nga dégg sa bopp loo bëggutoon a dégg ndax lu ñu wax nga ne maa pànk maa ko mën a wax maa ko ñemee wax torox rek torox rek àdduna ak àllaaxira baaxut euh, bi ci tegu tamit bokk na ci yi màbbu jëf dëngee sa ñaari waajur yi waajur pakk la waajur dafa foor alquran ba alquran jeex moom rek la yàlla ne sant ma sant ko anushkur li wali waalidayka ilayya masir alquran ba alquran jeex moom rek la yàlla ne boo ma jaamoo rafetalal jëmee ci moom wa qada rabbuka alla taabudu illa iyahu wa bil walidayni ihsana wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana waajur rek la yonentu bi ne meram yàlla ànd naag meram waajur ngërmande yàlla ànd naag ngërmandeeg waajur kon waajur foor na koo bëgg a yëkkati teg ko ci sa kaw waajur danga torox bul jël sa xarit di ko teg sa waajur bul jël sa mbokk di ko teg ci sa waajur bul jël sa sëriñ di ko teg ci sa waajur sëriñ am na rool waajur am na rool moo tax mag ñu baax ña fi nekkoon lu waay mos a yëkkati di ko jox sëriñ bu ne demal jox ko sa baay demal jox ko sa yaay ndax ñaan ak baay ak yaay ñoo ëpp doole ñaan ak sëriñ waaye léegi nag li fi des daanaka li ëpp ci ñuy wootee defaroo nit ñi rek dañuy fexe sax ba nga wan sa waajur yi gannaaw ñi man di la gën a mën a jariñoo te loolu lépp lu jara daw la nit ki dafa war a fonk waajuram ku fi bàyyi sa waajur da nga torox lu nit bëgg bëgg a te bëgg mbooloo ku la may addiyaay liir nga delloo ko dangay wax téye ko ba man dara bu mënee dem tool nag woo mati mën a téye machine mën a dem liggéey nga door koo nangoo jël kon nag ba nga nekkee li nga nekk ka la bëggoon di sa yaay rek ak sa baay soo demee ba ñëpp bëgg la nga bëgg la ne bañ la sa bopp topp leneen loo mën a topp dangay ngay torox waaye doo ko jëriñu loo mën a def na ci waajur jiitu waaye waajur ku ko gannaawal yàlla gannaawal sa àdduna ku ko gannaawal yàlla gannaawal sa àllaaxira ndax waajur dafa foor Cheikh na Tijaani nee na wan sa waajur gannaaw bokk na ci liy màbbu sa jëf nga dee ak zéro sa batterie vide nga dem safara moo tax sax fonk waajur a tax mu ne même booy wirdo wirdo li muy foor foor di ñetti maqaama wax ak yàlla ci sa bopp wax ak yàlla ci ci ci yonantu bi wax ak yàlla direct lii rek mooy wirdo wax ak yàlla sa bopp mooy rek yow yàlla yaa ne nañ jéggalu man damaa tilim bari bàkkaar kon astaghfirullah astaghfirullah maa ngi lay jéggalu yaa ngi wax yàlla ci sa bopp wax ak yonantu bi yàlla ci sa ci yonantu bi mooy ne yàllaa wax ne jul leen ci yonantu bi yàlla yow la ko sant inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa sallu alayhi nga ne yow yàlla yaa ma ko sant mais mënuma ko ku mu xamul darajaam ak martaba mënumaa julli ci moom yow laa bëgg nga dimbale ma jullil ma ci moom ne allahuma salli ala sayyidina muhammadin kon yaa ngi wax ak yàlla ci yonantu bi beneen bi nag mooy yàlla yow yaag yàlla direct muy laa ilaha illallah ku mu ci ñetti martaba yi boo ci man a xegg sa waajur waxee la muy sa yaay mbaa sa baay cheikh na tijaani ne téel sa péréb kurus tontu leen ba seen wax jeex fa nga xemoon nga continuer fa astaghfirullah ni mu fooree salaatu na nabi ni mu fooree laa ilaha illallah ni mu fooree kuñ la wax ne dagg ko ngir moom kooka foor na de kon waajur jar na bàyyi xel waajur yi kenn deesul leen gannaawal fi jaar ak ñun dafa metti bay bàyyi di bëgg su ko defee coono bu ne mu daj ca lu ne mu dem dagale ci ko joxe ko bëgg ñi dëggal ko bëggam ga yàlla dogal bala sa sosu sa yaay jëy ëmb rek manta lekkati manta naanati manta solooti na ko neexee mënta tëddee te na ko neexee keroog ba muy joxe bakkan bakkanam nangu nar caa des ku ñëw ne ko masta ñu ne coono jeex na muy bootaka di la defaraka ngay jooy rek di yàq sa bopp nga dem a dem ba nekkam ponkal di janq mbaa jigéen bëgg a wan sa waajur wi gannaaw koo mën a topp dangay ngay torox xamul werante kon nag xuququl waaliday nii dafay màbbu jëf nga commencé waate à zéro loo mën a def gisal ci sa waajur waajur du caaxaan Euh, fukkeel baag juróom nag ci laay tëjee sax mooy naral sayduna muhammad ne yonentu bi wax na fekk waxut ne yonentu bi def na fekk defut dangaa bëgg defar say mbir rek xam nga tey bëri na xadis yu bëri yu wérut xam na ci koo xam ne batañte la doon jaay bëgg mu jar rek mu ne yonentu bi nee na ku lekk batañte nangam ak nangam pour bëgg batañteem ba jar lam koy jural baaxut ñii ñëw wax ko ci ma ñii ñëw wax ko ci yeneen ak yeneen bëri na xadis yu bari yoo xam ne ay mawduaat la yuñ tëral rek la waaye amul benn assas amul sanat su ko defee nag kon fenal yonantu bi ngir bëgg defar sa àdduna loolu tamit valable na ci ji jamono da ngay toog am di lu waa toog nga ragal ko bëgg a yëkkati maqaamaam créé ay hadis yonantu bi waxut pour yëkkati ko rek bëgg am la ca poosam ba lu ne nga ne yonantu bi neex na jël hadis yooyu di ko askanee te ku mel nii taxu taxu yonantu bi doon wax loolu lépp fenal yonantu bi la. kuy fenal yonantu bi nag sa jëf màbb nga dem safara moom la xadis ba ne man kadaba alaya a falyatabawwa maqaadahu min an naar xadis bi xadisu tawaatur la lu ëpp juróom-ñaar fukki saxaaba solo nañ ko boo demee ci sayiwu muslim da nga ko ca fekk da ko fekk tamit ci buxaari yu tirmidi yu abu daawuda ibnu maaja nasaayi xadisu tawaatur la lu mat juróom-ñaar fukki saxaaba soloon nañ xadis bi su ko defee kon nag yii yëpp ma lima la dafay màbbu jëf na ko ab jullit di daw di ko moytu wax naa la ko bu la daraja xiir mukk ba ngay ba nga bañ a nangu dogalab yàlla bi lu metti métti neex na naqari na gërëmal nga sant yàlla li Omar waxoon dogale yàlla yaa xamut xàpp fu mu xem kon sant ko mënoon naa xëpp loola noo mel rek mën ngaa sant tey boo fi xamoon accident sa tànk bi dagg santal yàlla ñaar yi mënoon nañoo dagg di bu ñaar yëpp dogoon santal yàlla loxo ya mënoon nañoo dog di santal yàlla mënoon na loxo yi dagg nga dee tamit ñàkk koo fekkee kon dogalu yàlla amul dayo foo ne fii la xem mënoon na koo xëpp kon fa ko yàlla xemale santee ko ko nga boole ko gërëm dogal ba bañ a sànji bañ mer bul topp sa bakkan tamit ñi wax la dara nga naan bu ko yàlla digle woon sax duma ko def bu ko yonent bi digle woon sax duma ko def léeg nit ki wax ko du jeex men di wax wax xamadi yooyu wax yu ñàkk teggihin yooya ngir ak sam mer nga topp ko loola day màbbu sa jëf nga commencé waatee à zéro bëgg darajaak mbooloo mu la dar bu la yóbboo ci xooteeg wilaaya ku bëgg ko la topp deexal soo deexee da nga xam maqaama yu gën a foor ak daraja yu gën a rëy ba ngay dund li nga xamoon doomu aadama bëgg na daraja waaye daraja am lu mu rëy rëy xeggagut ci nag kaay leen sang ma kon deeyaa rek dañ la jox darajaay sang la bëgg daraja xeggagut ci waaw yéen a ma sang nag kaay leen solal ma yére yow nag comme dangaa bëgg daraja rek deexal gars yi dañ la sang solal la yére bëgg daraja tamit xeggagut ci kaay leen xenu ma yow nag boo deexee gars yi sang la sang la xenu la nit dina bëgg daraja toog rek jaaxaan ñi koy tagg moo fi def lii moo wax lii moo def lii rek muy dëggal rek comme dangaa bëgg ku la tagg nag deexal ku xas dee la nga xamoon ci lu ñaaw kenn du ko waxati seen lu rafet rek la ñu tudd tagg ya di jollee koo fu ne waaye booy dund lu tagg ya bëri bëri dana xam koo xam ne ma ngi lay xas boo xasee dee kenn xasatul la kon nag dangaa bëgg daraja ba tax ngay woote lu newut ci yow deexal rek soo deexee ñu jox la maqaamaab la gën a rëy ka doon dund waaye fa ngay mujjee bal bala gaaya sangee sàng la yanu la tagg la tey fi ñu jëm ak yow asfala saafili na gas pax ba mu xóot ñu sànni la fa sànni la suuf si wan la gannaaw dem raxasu ji du leen teree xañ du leen teree reer du leen teree ndékki oto yaay daw lépp dox mu mel ni dara tardewut moo tax boo fi nekkee ci àdduna bi te xamoo sa bopp dangay ngay torox foo ne yaa ko yor foo ne yow la nit ñi gëm foo ne yow la nit ñi topp foo ne yow la nit ñi déglu foo ne loo du loo duggut du baax loo ca newut maanaam du mën a tegu ca yoon deexal ci ngay door a xam ne ci lay lépp doori doxee kon yooyu yëpp ay jàngat la nit ki war koo xam yuy màbbu jëfangook wax na la ko su ko defee nag kon war na ci jullit daal yii ma tudd mat fanweeri jikko benn bu ko ca mën a gaar na tuub tuub gu sell delluwaat ci yàlla yàlla ku baax la yonentu bi wax na ci xadis boo xam ne muslim indi na ko ne inna yabsutu yadahu bil layli li yatuuba musi an nahaari wa yabsutu yadahu bin nahaari li yatuuba musi an layli maa lam tatluci shamsu min maghribiha mu ne yàlla daal dana tàllal yërmandeem li ko doore fi jant fenkee ba ba jant ba di soxee pour mboolem ku mooy yàlla ci bëccëg bi mu jéggal la fi jant soxee ba ba jant di fenkaatee mu tàllal yërmandeem ku mooy yàlla ci guddi gi mu jéggal la yonentu bi ne attaa'ibu mina zanbi kaman la zanba la ku tuub ci bàkkaar ak ku xamut bàkkaar ñoo xem yàlla ne wa tuubu ilallaahi jamian ayyuhal muminuun yéen jullit ñëpp tuub leen ngeen jëm ci yàlla borom ibnu ashir ne wa tawbatun min kulli zanbin yu jutaram tajibu fawran mutlaqan wa hiya nadam bi charti l iqlaai wa nafyi l israr wal yatalaafa mumkinan za istixfaar kon yii mu ne tuub daal ci bépp bàkkaar boo xam ne da nga koo fàggu war na ci lu gaaw du bokk ci lu ñu yéexee soo bëggee mu wér tuubal réccul soo bëggee mu wér bu deekul soo bëggee mu wér tamit na nga ñàkk nuur ca bàkkaar ba waaye tamit na nga dabaatal yi la paase woon ci yi nga xam ne defoon nga ko ci ak mooy yàlla xaadimu soo daan tënk ne daal tuub balaa mën a wér na yore meloo xalu safara xalu safara ku sob ba dëgg ca dese nga gëneen tëbin de tëbin googa mooy iqlaawu ku sob ba dëgg ci xalu safara da nga réccu lu taxoon nga dëgg ca ku sob ba dëgg ci xalu safara xaw ma ban moo lay lakk waaye doonul donatu wii kon tuub dafa war a xamee melow frontière boo sobee ba jéggi frontière te ay pièces gars yi jàpp la dañ lay tëj de dañ la refoulé de refoulé gi nag mooy dañ lay delloowaat ci sa réew kon nañ delloowaatal fa nga bàyyeekoo xoon nga ne delloo naa kon mooy iqlaaxu ngoog nga ne tamit réccu naa ne dootuma tukkeeti mukk mukk te samay pièces complété wul ana damu ala ma su ko defee nga ne tamit dogu naa eh, ne dootuma ko defati mukk moom moom tukki ta awma piyas xalaatatuma ko di taxoon ma def ko tamit réccu naa ko li des ci sama dund yëpp dootuma ko defati su ko defee kon loola bu ko tuub melee rek yàlla jéggala li passé moo tuddee boppam ne innahu huwal baru rahim kon nag fanweer yi ma limal leen mooy màbbu jëf bëgg naa kenn ku ci nekk noté ko ci xelam mi noté ko ci xolam bi bi yoom ñëpp boroom xam-xam yi ñoo ci dëppoo boo ni boo ko def sa jëf ja màbbu na nga commencé àtte à zéro wax naa la ko nag murtat moo ca jiitu ba ca mujj nag mooy fenal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak xoote wilaayaak xoote ay darajaak ŋàññi gaa yàlla yu baax yi yooya moo ci mujj kon xam naa boo ma toppee suba nag ci waxtu wi ma ñëw ak yow nag ci yi nga xam ne day kafaara bàkkaar day am yoo xam ne boo ko defee yàlla ku bëri yërmandi la lu sa bàkkaar bari bari bari bëri yi ma bëgg a wax nii suba incha allahu ci waxtu wi euh, dinaa ko topp ba yëpp jeex sa bakkaar yi nga defoon yëpp yàlla jéggal na la ko am na ci yoo xam ne lay jéggal bàkkaar yu njëkk yaak yu mujj yi am na ci yoo xam ne yu mujj yi rek la lay jéggal am na ci yoo xam ne yu njëkk ya rek am na ci yoo xam ne yu mag yu ndaw ya rek am na ci yoo xam ne tamit yu mag ya rek am na ci yoo xam ne yu mag ya ak yu ndaw yëpp la yàlla boole jéggal la ko danaa la ci limal lu hëpp fanweeri yëf moom tamit nga note ko xam ne yooyu ku ko def ñu jéggal say bàkkaar te jamono ji bàkkaar dafa bëri kenn mënu cee ci su boobaa nag kon fexeel ba boo defee bàkkaar luy tax sa bakkaar yi yàlla jéggal la ko loola jar naa sonnee bu baax a baax a baax maa ngi leen di jox rendez-vous ëllëg ci waxtu wi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.